am na lu pour la première fois dans l'histoire équipe bu mag boobu nga xam ne mooy Paris Saint-Germain day dem final ak équipe bi nga xam ne mooy Bayern te loolu nag histoire la l'histoire te ki nga xam ne moom moo nekk ci Sénégal ñëwoon démb te ñëpp xam ne muy def émission bu mag boobu nga xam ne day am altine bu nekk war a talaata bu nekk ci talaata bu nekk ci TFM mooy Ablaye Diaw indi na ci waxtaan bu am solo boo xam ne ne woon ñëwoon démb ku leen yeewoon ne équipe bu France Paris dem na final Ligue des champions mhm. duñ ko gëm dëgg lii ndax dañ koo buuxante ba sonn ay at depuis Michel Platini amuñu ko ñu ngi mhm. koy soog a am Ablaye jaw borom xam-xam bii nga xam ne xam-xam dafa màcc ci diggante nit ak nit mhm. waaye ci football ak cosaan ñu seeti ab Diaw dëgg lii <laughs> salaamaaleykum <laughs> na nga def Eh, yaa ngi ci jàmm. maa sant yàlla bu baax. mbaa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. ana ana seen waa kër. sant bu baax ñu ngi ci jàmm. alhamdulilah. Eh, yu kii ci yow la nekk. ci man la ne. Mati Samb yow doo doomu Alaaji Mbay Samb ay ah, yow ah fi nga nekk ci télé bi ah waaw kay waaw kay. jërëjëf <laughs> est que xam nga li ma fi ma xamee baayam. après naa la wax. jërëjëf <laughs> jërëjëf yóbbante ak la laata nuy dugg ci waxtaan wi. dañ maa yóbbante ci yow papa. waaw mi nekk grand grand yoff mu ne ma lépp loo xam yaa ngi ko ñan ci askan wi yàlla na ko yàlla delloo. amiin ban imam la. imam Babacar moo nekk jumaa jom ak ja. Babacar man. Mbay moo ne ma. imam Babacar Mbay. waaw mu ne ma lépp loo gis lépp loo xamante ne nii yaa ngi koy ñan ci askan wi yàlla na ko yàlla delloo. est-ce que xam nga imam Babacar Mbay alxuraan bi mu jàng noonu da ko doon. la ilaha illallah. est-ce que xam nga ne imam Babacar Mbay tey bu ko neexoon taxaw am ay taalibe yoo xam ne dañuy liggéey pour moom. dëgg lii. xam-xam bi bu taree mus nga fekk fu muy jàngee alxuraan. wóo oh, tu tu tu tu bu taree alxuraan dafa mel ne da nga da nga dugg ci biir xol. alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf dama ko xam. jërëjëf dama ko xam parce que Sayer Ndiaye. Sayer Ndiaye. moo ma doon wax ne barke Demba euh, euh, Atuman Mbeng. Atuman Mbeng. moo ma woon ne ma est ce que xam nga imaam léegi. boo ñëwee jàkka ja bu xale yi xamee ne imam yi jiite ñëppay kontaan. dëgg lii yàlla moo koy def barke maa ngi koy wax sax euh, Amadou Diop Boy Bandi. Amadou Diop Boy ko Amadou Boy Bandi mun naa mën a ko fexeel ba jiite gaay yi. <laughs> fexeel ba jiite gaa yi. jërëjëf jërëjëf. kii du Jamil Ba yow looy def fi est ce que kii xam nga papam kii kuy bàyyam xam nga papam xale bii kuy bàyyam papam ak ak ak ay xar lañu. Ozobio Ozobio fu mu la mbokkam la ay waay la mën a yarax ci yàlla tey nag doon na bëgg waxtaan ak moom boo gisee ñuy waxtaan ñu bëgg waxtaan nag suñu xarit ma fan ngay dégg. la ilaha dégg Demba ma gis barke Demba ngeen taxaw fan ngeen fan ngeen foo koy dégg léegi. de xanaa ci parage rek est-ce que xam nga doomu Alou ko gis sama yaram dafa sumeeku. ne li ma xam wax dëgg yàlla li mu xam lépp wax dëgg yàlla bu ñu ko bëggee waxtaan xajul ci émission waaye papa tey dana bëgg delluwaat démb li tax ñu bëgg delluwaat démb dana bëgg delluwaat à l'époque ndax l'histoire c'est une science qui étudie la passé des hommes dafa loo xamante ni nii wax dëgg yàlla mësta dal Paris France ba muy France ba léegi wax dëgg yàlla mësunoo dem Ligue des champions tey wax dëgg yàlla mu war a football Ligue des champions ak équipe bu mag boobu nga leen xam nga xam ne moom nga wax Bayern mooy dimanche muy dimanche nan nga jàngatee loolu ah, xam nga xam nga Papin. Papin ku ko yeewoon na ko Papin ku ko waxoon tey boo ko fekkoon ci ay nelaw na ko nelaw nga yeew ko ne ko France équipe France mooy dem football la ak équipe ama du ko gëm. du mukk ci carrière Michel Platini. Michel Platini. digg Maris Trésor. Maris Trésor. c'est le premier noir bi nga xam ne moo football équipe de France. digg lii. Trésor. Dominico Pata. Dominico. Pata Pata. laa ilaaha illallaah loolu à l'époque ay joueurs yoo xam ne dañu rey seen bopp ci football France. Mhm. pour dem Ligue des champions mais a chance bi. amuñu chance bi amuñu chance bi. Mhm. chance bi kon ni Sénégal ñàkkee chance. pour euh, euh, club des champions yi. Mhm. Mazaret Sénégal demi finale bu war a quart de finale lay yem. quart de finale essai bi moo ci demoon. ak Douane mais du la première fois France war a jàkkaarloog Allemagne loolu histoire la. waaye nag dafa am ñaari ay noirs yoo xamante ni doon doon nañu ci biir. lu ci mel ni Mbappé tey est-ce que bu yàkkamtiwul pour jël Ligue des bi pour fierté am la xam nga man du ma wax Mbappé maa ngi koy wax démb alu alu mbay alu mbay mu lay laaj ndeysaan mu lay laajte mu naan ma mu naan ma moom caama nday mbay ma ne ko nday mbay nag barki démb la ma yàqal ceeb bu neex war dégg lii soxnaam est euh, xam nga sa soxna lan laa bokk ak moom ah mbokk feeñ na bilaay mbokk feeñ na xam nga aram jaw aram jaw manti aram jaw men waaw Aram Jaw sama maama. digg lii Aram Jaw Aram Jaw moo meññ euh, euh, waajur bu jigéen wu Ndeye Mbaye. comme xanaa Khoudia Ndiaye. Eh, oh, foo dégg Khoudia Ndiaye. Khoudia Ndiaye ngi fi. Oh, Khoudia Ndiaye de dégg naa marché la rek table bu mag lay jaay. table bu mag la day jaay day jaay daal. je te te te te te te. Eh, waaw mbokk nga fi Mbappé. Mbappé ñëwul ci Mbappé. su ma ko gisee sama xel day dem ci euh, day dem ci. Aspiran Cissé. Aspiran Cissé bu SIB. bu SIB xam nga Aspiran Cissé. Aspiran Cissé. Amadou Diop booy bandi. Amadou Diop booy bandi Mbaye Fall. Mbaye Fall Sega Sakho. Sega Sakho. digg lii. Hmm. ñooñu ñoo yoroon clé équipe nationale Mansour Wade. Mansour Wade. xam nga Jules François Bocandé dem si yàlla. dem si yàlla Bocandé xam nga football tey gis nga dinañ dem ba ay Sadio Sadio Mané. Mhm. naa sàcc wax la loo xam ne xamoo ko ci saajo muy. est-ce que xam nga ne bu laalee bal dóor bal mu gaaw lu ko waral. lu ko waral xooxu koko. xooxu koko. oh sibilahi mina shaytaani rajim xam nga koko. sa tànk di dagg di naat ci. boo tiimee bal day mel ne éponge. day mel ne yow bi wax nga xam-xam. ndax bambali. bambali. pour ñu gisoon bal day fay metti je te te waaye moom du ko jaraloon di football ak koko. wuti koko def teg du ko football mais mais mais mais caama. Mhm. Euh, euh, Badara Mbaye xaal yi. Badara koy dégg léegi kuy Badara Mbaye xaal yi. supporter Paris Saint-Germain la Badara Mbaye xaal yi. je te Badara Mbaye xaal yi moom fu mu ne léegi. moom moo tax ma la ko laaj Badara Mbaye xaal Ah, ba Badara Mbaye xaali doom ji laa mosoon gis euh, ci muy football Saint-Étienne mais am carrière am yàggul waaw Daouda Xaali Daouda Xaali waaw laa ilaaha illallaah Daouda Xaali Daouda Xaali leer na ma ne jour bu mag la woon boo xamante ne nii bu mag la woon bu mag la woon ah? mais gis nga match bii nii derby la diggante Allemagne ak France mhm. du match boo xam ne match su caaxaan la France mun na cee gaje siggi ci sigi ci waaw parce que FIFA ngi négocier pour supporter ñoo seetaan si parce que mu ngi soog a am ci àdduna dëgg lii mu ngi soog a am ci àdduna dëgg lii am ci àdduna ah, alhamdulilah rabbil mi ngi a am ci àdduna wax dëgg yàlla que le meilleur gagne mhm. waaye xam nga kan laay xalaat barke démb kan ci Ibu Ibu Manati Ibu Ndour Ibu Ndour ancien joueur euh, ASC Saltigué Ibu Ndour men mais barke démb la may wax ma bu France gagné moom ci boppam këram day rey xar day fa koy seetaane yow mi fa gars yi dañ fay nekk Talla Mbaye Talla Mbaye Abdoulaye Cissé waaye yow ana Daouda Daouda man Daouda mi ngi fi di ba xool par fan passé Daouda Diassé Daouda Diassé ngi fi te bu nekkoon euh, sa kii euh, Saint-Louis di Linguère bu Saint-Louis Linguère bu dem Ñambur waaye dëgg lii xam nga ko xam mën naa ko bu baax ah mais dama dégg ñu ne dafa bàyyi mu ngi ci euh, kenkaari bu mag yi lan bu mag ah, moom na bàyyi loolu waaye tamit la Saloum na bàyyi la Saloum la Saalum la ko kenkaari yi la Saloum la Saloum ah, Daouda Mbaye eh, eh, eh. kan ci kan ci mais Pape Cissé foo koy gis. Pape Cissé man nati. ASC Mbose bu Kaolack. ah pa ancien Pape Cissé. xam nga lu mu bokk ak Ibou lu mu bokk ak Ibou Cissé caméra fii ci télé bi. waaw mais grand frère am la. non si bilaay foofu ci boo demee Léona Niassène. Léona ñoo maam min Mbambara. ay taaliba bàyyi nañu moo tax ñemu ñu dugg ci football bi. waaye bu mu bal ñu dégg nodd dañuy bàyyi mais football oh, ana Demba Kay. Demba Kay man tëji kuy Demba Kay fu Demba Kay. fu Demba Kay di fa xaritu benn bakkan Ibrahima Ndour la. dégg lii te il faut gis muy ana Lamarana. Lamarana manati mbay. xam nga Lamarana mbay. ba ba Lamarana ba doon fubal. déedéet bokkul ak papam mooy di Sénégalais. ah moom deux temps la. deux temps la deux temps la. waaw foo dégg Sadio. Sadio manati Sadio Camara. Sadio lu muy def léegi nekkoon si waaw. mais dégg naa léegi dafa ibi ngandim kenkaayar yi. fan la ubbi kenkaayar yi. booru rue la feneen. waaw waaw bal moo tax waxtaan moom baax na eh. li yóbbu à l'époque Ablaye Diallo Ablaye Diallo man. papa xale bii nii nekk fii ci réalisation bi Fatima. Ablaye Diallo Ablaye Diallo. chute Ablaye Diallo toj Fouta. ma yaakaar ne góor la woon. déedéet attaquant la woon. auzu oh, billaahi mina est-ce que xam nga ne mu ngi ASC Monaco Plage. Monaco Plage lan fa lay football ba. moom Ibou Kenkaay de xam nga lu muy jaay. lu muy jaay ay géej. ay auzu billaahi mina shaytaani rajiim. ma ne bàyyi na bàyyi li muy def Kalidou Mbaye. Kalidou Mbaye ti. bu bu bu Malick Sy Souris. bu Malick Sy ah, est-ce que ah. xam nga ne Malick Sy Souris joueur la woon SCB. Ah, ana imam euh, kii. imam ban. mooy imam euh, Aliou Sall. Aliou Sall benn mi. imam Aliou Sall. Aliou Sall mi mu nekkoon capitaine Castor. njëriñ laal ma ko bi moo koy moo ko moo ko droiteur mais mais footballeur la. ah kon xanaa Iran da. waaye yow anam Talla Mbaye. man. waaye bàyyi ma Talla Mbaye. ana Kalidou waaye foo dégg Sadio.